cannabis ñu gën koo xam ci yàmba doon loo xam ni ndaw yi dañuy faral di ko jëfandikoo léeg dina dem ba tàggali leen ak seen sago fan yilee coowal daganal bi lee si nekk lu lëmbee dëkk bi bi ñu taataanee suñu micro ñenn ci askan wi ànduñu ci bile dogal. loolu moom man du lu may rafetlu quoi parce que buñ ko légaliser mooy yàq nañ population bi parce déjà que loo xam ne nii boo ko tuxee Euh, dag doo ànd sa sago mën na tur def ay trouble sa bop, mën na la jaxase donc franchement parler man moom rafetlu wu ma quoi su ma sañoon moom ñu bañ ko légaliser parce que baaxul si population bi aussi loo xam ne boo ko tuxee mu jàpp sa bop def la ay affaire donc baaxul quoi pour man franchement parler su ma sañoon daal ñu xool jël si ay mesures quoi. loolu seen xalaat la ñoom comme ñoom ñoo xalaat loolu teg ko man moom man li ma mën a wax moom mooy baaxul baaxul. mom moom la laa wax niñ koy defaree ba du ko dose bi nangam sangam day day maté wala du maté dal ngal baña a laal daal waaw franchement parler loolu la gis man. Ibrahima Gueye bi leen ndaw wul ben yoon bi leen dogal tax muy sakku ci Sidi Gassama mu dellu ginnaw ci ay cadeau le mot daganaan mo bi sax dafa rafetul ba nga ba ngay ay waxu daganaan loolu bu ko defee mo wax dëgg yàlla lay yak ben te yamba boko tuké sa xel dootu ànd ak sa xel da ngay dem def lo xamantene naka su non barki dem lañ fi tëddee ben imam rendi ko te do mako def te da tok yamba le mo yamba mom da nga ko sax dingi waxuma la sax gars di ko wax ni da nga wona waroon éliminer Sénégal instant bi ken bo sa dom sa bu génneen ma ngi dem sangam sàngam do do do wul ken yow parfois sax da ngay gis maire maire bi neexal neexal dom sax di ko di fon fóonlu di xeeñ ci yaram ba xam ngi xeeñ yamba wala mi ngi xeeñ naka non ci diga Sidi mom ma ngi ñaan sax di ko ñaan xawmako xamna kilifa la mais ma ngi ñaan loolu mu wax non na ci dellu ginnaaw loolu baaxul ci ñun man sax tux cigarette café sax du ma ko naan mais loolu mu wax moom na ko dingi waat quoi baaxul xalaatam bu gàtt Ibrahima Sy di ab ndongo jàpp na ni daganal yàmba boobulee ku ko def da nga bëgg yàq dëkk bi lenn rek laa ci wax ñu bañ see abusé ko ñu bañ si dugg

doonul loo xam ne nii lu lu lu lu baax la ci askan wi. man moom sama avis lay wax mais d'accord mu ci loolu ak yooyu parce que su boobaa noonu beneen affaire lay lay lay mën a jur Sénégal daal ak yooyu parce que kum neex tux yàmba après def dégâts yu la neex ak yooyu man je crois que ne nekkul lu ñu war a mën a légaliser ko relance bi bari na fii fépp gox boobu dem ma nga fa gox yëpp bëccëg beeg notte beeg seraata beeg yëpp a ci yem gars yi da ngay génn fii ñu jël li nga yor appareil bii rek boo doxoon fii gars yi jël parce que ñoom lu bon la ñuy tux doy na sëkk li fi ne doy